di nuyu baax jaww ji ñu kër yi di sëriñ Ahmadul Moxtaar di nekk ci bopp njaboot Cheikh Ahmadul Moustapha yal na suñu borom wan kii maanaam bu ñu fan ci jëmmam di baax jaww ji ñu kër yi di sëriñ Cheikh Mbacke Madina di nuyu président fédération bi di sëriñ Moustapha Gaye Defaan di baax sëriñ Moustapha Mbacke moom sëriñ njabootu Cheikh Mouhamadul Lamin ndax du yaari kër genn kër rekk la sëriñ mooy borom gi kon noo ngi nuyu di ziyaare ñëpp di ziyaar bu baax a baax njaboot gi ci suñu gannaaw ziyaar sëriñ Cheikh Mbacke Mbacke ñu fi teewal sëriñ Madina ànd ak njaboot di ziyaar bu baax fédération Cheikh Lamin Baara ñoom ñëpp fii la ñu yàllu ànd ak ñun liggéey ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziar kenn ku ne ab ziar bu méngoo ak wàccuwaay bi la suñu borom jox di sant bu baax a baax mbooloo yi ci seen teewaay di leen massaw yi itam ci coono yi xam nañ ni jot amul xam nañ itam ni yitte yi bari na waaye xam nañ fu leen bis bi toll ba mu jotee kenn ku nekk la nga amul ci ay yitte da nga ko dàq ñëw taxawee bis bi ba mu matt nga door a dellu ci yitte yi yàlla bi tax ngeen di ko def yàlla na leen ci fàggul lu kawe seen jot barakal Cheikhul Khadim ñoo ngi leen di masoŋ bu baax a jiite liggéey ini satu ngi sant ñëpp di ñëpp bis bi bis la boo ini, ni nii yàgg nañ Luji taxawal lu jiitu ci ay daayira lañ ko daan amal daayira bu ci nekk di amal ca gox ba nek nekk bi lañ door am xalaat ci 2008 boole ko mu doon benn loolu itam gis-gis bi nu ci am ak yëg-yëg bi ñu ci am mooy danoo àndoon ak i nit ci biir liggéey bi yàlla dogal ñu wuy ci seen borom nu gis ni ki nu doon boolee lim lu waxoon mooy dama bëgg ngeen ànd di jariñu di jariñant kon ñi dem ba léegi seen wàll mi ngi ci liggéey bi ndax loo leen féete gannaaw war leen a taxaw ñi fi nekk itam li nu war ci suñu duggante mooy nu taxawante tey jàppalante loolu taxoon bi ñu daje ñu ni kon nañ taxawal benn bis boo xamante ne ni dañ ciy ñaanal bokk yi nga xamante ne ni dañoo dëdd ginnaaw nag boo xamante ne ni ki yàlla yónni ci ñun nee na nit bu faatoo jëfam yépp dagg na ba mu des ñett te nu gis ni doomu aadama itam li muy sax ci aduna da yagul te sun borom itam li wax lu dañ mooy kenn ku ne la nga jëf dong nga am loolu nag tax ñu gis ni kon nit ñaari néew doole ñoo ko seet man gi lu tuuti la te lim fi yàgg bëriwul te fa mu jëm amatul ak kon mat naa may loxo mat naa jay ni bu baax a baax ñu xam ne itam ne ab jullit wërta ngoot yene wër taxat ndax ki maye nim tollu lay joxe noni kon nañ fas ba sun borom tambale bin ñako ko gëmoon ci ay ndigal ba aduna di yam sun borom jéggal ñëpp ñi jiitu ak ñun ñi fi dess ak ñi ñëwaat ci sunu kanam ñoñu ñëpp lañu ñaanal yërmande sun borom akum ñi fi dess tam sun borom bañati leen topp dara loolu nag dañoo def tawasul ci sëñ touba ndax mo wax ni doa umman bi tawassala mujab li nurihi allazi yusahsihul hijab ko ñaan te def tawasul ci man sun borom dana nangu ñaan nu defe ko tuuba itam sëñ touba mo ni won def lu bax fepp lu bax rek waaye la gëna sakkal yàlla def itam ñu dëkk daaru khuddus kër gi di kër yalla mu ni daaru khuddus ni rabbil alamin mursilu ahmada kon dajale gi ñu dajale nit ñi itam bañoon na bayyi kenn ku ci nekk mu di ko defé fa mu nekk mooy danoo xam ni sun borom mi ngi dégg ñepp way dégglu ñepp yalla mi ngi gis ñepp way xolul ñepp ñu japp ni nak buñ dajale dana am ci biir ño xamanteni ni buñ ne allahumma sun borom da nangu seen ñaan loolu moo tax nu taxawal bis bi te sëñ Tuubaa daf noo waxoon ne na ngeen dëkk ci wax yàlla ana nga mag ñi ni ko nuñ koy waxe ana nga mu ni dangeen ngeen di sax ci lim leen digal su ngeen ne ko ana nga dana leen wax maa ngi nii ñu ni ko nu muy waxe maa ngi nii mu ni soxla su ngeen am mu fajal leen te nun suñu yitte jan rekk la muy yitte ji sëñ Tuubaa am ba ni ilham jami al wara loolu rek mooy suñu yitte suñu góorgóorlu yëpp lépp foofu lañ ko jëmee ndax Sëñ Tuubaa daa wax ni lépp loo xam ne ab saay-saay mën na koo am am ko dungoor te ab saay-saay ngërëmal yàlla dong nga ko të moom la mën am noonu nag ngërëm loolee lañ soxla dafañ ci suñu mbir lépp kon bis bi loolu yi rek moo taxoon ñu taxawal ko ngir yërmaande ju ñu ëmbal bindéef yi te bëgg leen a wóotu seen gannaaw wóotu leen ci seenu njaboot ba keroog ñu leen di fekk lii rek moo tax wilaaya bu Tuubaa di organiser bis bi di ko ànd ak mboolem membre fédération bi di ko ànd ak mboolem jullit ñëpp bis la boo xamante ni daal yëg-yëg biñ ci am mooy bu dikkatee adduna bépp yëg ni tey jii la ñaan booy daw ni képp koo xamante ne nii bépp araf boo xam ne boo ko yëkkatee da nga ca yaakaar yërmande yàlla nga ñaan araf boo weex te ñaan suñu borom def ko ci seen téeram jëf ndax foofee ñu nekk soxla nañ ko te yàlla li mu wax du ci daj danaa ci wax rek ngir ñu bàyyi ci tuuti xel jamono yi fi Sëñ di nekk ci kër gu mag da am xew-xew bu fa xew tubaab yi ñëw raafal ci biir kër ga soixante-dix personnes yóbbu leen prison am na ñoo xam ne fitnaan nañ leen ba ñu xëm ba xew-xew ba jàllee sëñ bi woote wax leen ni leen ni jàppoon ngeen ni tubaab yi ñemeetuñoo dugg sama kër di fi def lu mel nii ñëpp ni ah waaw waaw loolu de jàppoon nañ ko sëñ bi ne leen nag sakkantumaak yàlla mi bind motax yalla mat na baye xel bu baax a baax sàkkantuma ak yàlla mi bind ndegam doom adam mo sañu dug ci bir keur ga japp fa ay nit fitna len sa sàkkantuma ak yalla ni bind motax lu bëgg dellu ci jaamu yalla te tek ko ci sunna te moy tontu ci sunu bir te boole sunu bop sa yëpp ñoo ngi lay ñaanal bu baax baax yal na yalla taxaw yalla yalla sam ba nga àggale yene mag ñi li wajuru doon nas muy yermale ju andul ànd fi yalla ko gunge ba yermale jojé kenn ku ñek teg ci sunu bop wasalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh